mbokk yu baax yi nga xam ne baaxoo ngeen di seetaan seen télévision Futur Média dellu siwaat nañu ak yéen ci seen waxtaan wareefu Ramadan di leen nuyu yéen ñëpp di leen ziyaara waaye di leen balu àq tey baale àq di jiital si nuyoo bi nag suñu kilifa diine yi fu ñu mënti nekk ci biir réew mi ak ci bitim réew ñoo ngi leen di nuyu di leen ziyaara di sàkku ci ñoom it ñaan ak ndigal ci waxtaan wi nga xam ne door nañ ko di ñaan yàlla boroom bi subhaanahu wa taala yàlla nañu yàlla jubalal ba lépp luñ fi wax fekk du génn lii yàlla borom bi subhaanahu wa jox suñu sang bu tedd bi muy sayyiduna muhammad sallallahu alayhi wa di yonantaam bi su ko defee ñuy nuyu tamit suñu kilifa aada yi di nuyu suñu waajur yi góor ak jigéen mag ak ndaw di nuyu tamit suñu njabootu bopp gi suñu doom yi suñu jarbaat yi suñu sët yi waaye tamit di nuyu yi tamit suñu invité bii ma am sama invité bu rafet bi di sama rakk waaye nag di sama xarit di sama soppe di Adja ayda Deme Mbaye Aïda maa ngi lay nuyu di la ziar di la jox kàddu gi yow tamit nga nuyoo di la wax bismillah fii ci télévision Futur Média di seetu askan wi Aïda nuyul mbokk yi nga xam ni ñu ngi lay seetaan aouzu billahi min alsheytaani rajim bismillahi rahmani rahim alhamdulilahi mm-hmm. rabbil alamin wasalaatu wasalaamu ala muhammad ala sayiduna muhammadin ashrafil xalqi sayidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain kon mbokki ñoo ngi tàmbale ci turu boroom bi nga xamante ne jaamu ko de di jur njariñ ñàkk ko jaamu di jur ay lor ñu leen di nuyu nuyóob lislaam di asalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakaatuhu ci jataay bi nga xamante ne suñu mag suñu xarit suñu soppe suñu àndandoo fu nekk yéene ñu jàmm te di ñu topp saa su nekk di ànd ak ñun ci lépp loo xamante ne yiw la ak mbaax ci diineel islaam bi nga xamante ne moom la taxawee muy soxna Faat Bintu Jóob di ko ñaanal yàlla yàlla may ko fan bu gudd ak wér gi yaram amin amin mbaay ci jataay bi nga xamante ne invité nañu ko am ci yéene lool yàlla na ko yàlla fay ñuy nuyu waa Sénégal di nuyu ñi nga xamante ne ñu ngi ñuy seetaan fii ci télévision fitiir Média di ñaanal yàlla boroom kër gi ak njaboot gi nga xamante ne ñoom la fi teg ñuy doxal liggéey bi yal na leen yàlla fay di nuyu waa Sénégal gépp ak bépp kilifa diine ak kilifa aada muy asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu. jërëjëf soxna Aida nuyoo bi matale na sell na yàlla na la yàlla fay yàlla def la mag xam nga waxtaan wi macha allahu euh, di wareefu Ramadan man maa koy euh, taxawee ak sama càmmeñ sama xarit Oustaz Mor Thiam. Oustaz Mor Thiam nag macha allah tey ñàkk teewam li ko waral mooy dafa am benn jarbaatam bu génn àdduna loolu nag démb la am ñu denc ko tey nag mu nekk ci dëj bi loolu moo ko teree ñëw kon Oustaz Mor ñu ngi lay jaale di jaale sa famille di jaale umma islami wi yëpp di ñaanal yàlla way dawlu jooju yàlla na ko yàlla xaaree àjjana ya gën a kawe dëkkal ko ci jannatal firdawsa di dëkkal ko itam ak yonent bu tedd bi sallallahu alayhi wa sallama di la jàll bu baax a baax a baax ak ñu ànd ko nag ak jullit yëpp ak waa mbooleem kuy auditeuru télé bi wala nga nekk ndax auditeur laay wax ak téléspectateur ndax am na ñoo xam ne bu ñu nekkee ci euh, yoon yi yore seeni dégluwaay dañuy déglu moo tax ñaar yëpp la ñuy boole ñiy déglu ak ñiy seetaan ñu la koy jaale di wëlbatiku nag jaal googu mu valable si bépp doomu aadama bu nekk tey ci kaw suuf te mitit boobu wala naqar boobu ñëw nuyu si la ñu lay koy jaale di leen wax rek inna lillahi wa inna ilayhi rajiun comme ni ko sama mbokk sama doomu ndey Adja Degen Chimère Diallo baabu di waxee ñu koy jaal moom tamit ñu koy jaal li nga xam ne wàcc na ci kaw Oustaz Mor Thiam ndax ñun ñëpp a ko bokk waa télé bi yëpp a ko bokk su ko defee euh, soxna ayda ñuy nuyu ñi nga xam ne ñu ngi ci hôpitaux yi ndax xam ngeen ne télévision Futur Média day wéttali ñi nekk ci bërëb yooyu di nuyu itam ñi nekk seen liggéeykaay waaye tamit duñu fàtte di nuyu di ziyaar itam ñi nga xam ne ñu ngi ci bërëb yu lëndëm yi mooy ñi nga xam ne ñu ngi ci caabi ñi caabi féete ginnaaw ñu ngi leen di nuyu yéen ñëpp di leen ziyaara di leen euh, ñaanal borom bi subhanahu wa taala ndox loolu ngeen xam ne wala natt boobu nga xam ne yàlla wàcc na ko ci seen kaw yàlla na ko teggi ci kaw jàmm ak salaam ba ngeen delluwaat ci seeni njaboot ñu dugg yi tamit si hôpitaux yi ndax xam nga ne dund ak wér ak wére di ñoo ànd waaye bu leen jaaxle ndax yonent bi sallallahu alayhi wa mi nga xam ne moom la yàlla waxal moo wax ne li kulli daa in dawaa un feebar boo gis am na lu koy faj alimahu man alimahu wa jahilahu man jahilahu ñi ko découvrir agum xam nañ ko am na ñoo xam ne seen gëstu eggaguñ ci wala app ba jotagul ndax feebar ndaw rek la kon ngeen dalal seen xel ne incha allahu taala yàlla ngeen wér ak jàmm ba dellu si njaboot ñi nga xam ne itam ñu ngi bitim réew nga xam ne macha allahu gan gi ñuy teertu xëj na ni mu yombee fii nga mën a dem ci oustaz mu jàngal la wala nga dem ci mën a dem ci imaam laaj ko mu wax la wala nga mën a jàpp télé nangam télé nangam wala rajo nangam rajo nangam ñoom xej na ci télé bi rek lañuy déglu kon yéen ñëpp waa diaspora bi fu ngeen munti nekk ci àdduna bi ñu ngi leen di nuyu di leen ziyaar di wax ne seen waxtaanu ramadaan di wareefu ramadaan weeru koor dellu siwaat na ak yéen ñi leen di bàyyi nag ren ak liggéey bu am solo liggéey boo xam ne macha allahu taala ndax fii moom dañuy bëgg jours rek luy yokk luy gën a yee doomu aadama yi ñu xool li nga xam ne yaakaar nañ ne suñ ko defee mooy gën a baaxal soxna ay Aida ci loolu la ñuy dem ba tax na tey macha allah ci fin bi dinañ gis ne asatise yi nga xam ne ñoo ŋànk xam-xam bi. Mm. fii ci kër gi ñoom ñëpp dem nañu ku nekk dem ci kër gu mag a mag a mag. ngir jëli la nga xam ne yaakaar nañ ne assan wi bu egsee fii togg la boo xam ne buñ ko yekkee képp ku ci añ wala nga reer ci dootoo xiif ba faaw ci sa mbiru diine ay da xam nga ne mhm. euh, fan yi yëpp ñu ngi ci nekkoon ak wareef ci alaaji njaay loo itam ma koy nuyu alaaji suñu nijaay suñu soppee di nuyu ñëpp macha allah di nuyu Adja Degen di ko nuyuwaat ndax moom dafa sore ci sama xol di ko ziyaara di ko wax ne ko mu noppaloo jàmm ci congé bi nga xam ne moom la ñu jël en attendant ñuy tukki su ko defee may nuyu nag. borom kër gi alaaji Youssou Ndour ak waajuram bu jigéen bi nga xam ne sama soppi bopp la ak mbooleem personnel bi di nuyu man tamit nag sama ji bopp muy alaaji kaaw xam nga kaaw moom ku ko nuyuwul ku ne rek dama lay fasal kanam kon léegi ay da li ñuy jublu mooy xam ngeen ne tey mm-hmm. ci Sénégal macha allah ñëpp a ngi xaar gan gi soxna Aida gan gi nga xam ne fan yëpp ñu ngi wax nan lañ koy teertoo wax nañ ci lu bëree bëree bëree bëri mais ñu ngi toll ci xam ne incha allahu taala tey mooy doon démb moo doon séntu bu njëkk fii ci Sénégal gisuñu ko am na naam ñu ñu jokkoog yeneen dëkk ñu commencé waaye fii ci Sénégal lu ëpp ñoom wooraguñu hmm. ndax li yonent bi sallallahu alayhi wa sallam wax rek loolu dama koy bàyyee ak yow ci nan la ñuy woore lu tax tey wooruñu Aïda soxna Aïda mi nga xam ne macha allah ñu fàttaliku ne nag ne doomu daara la yore na daara di jàngale soxna Aïda Mbaye ah sëtu Moussa Allé la ah yi papaam di Cheikh Tidiane Mbaye yàlla ko yàlla yërëm ñu tuddee ko soxna Aïda Dem May doomu euh, euh, soxna xalif euh, général des Tidiane Cheikh Ahmed Tidiane suñu soppee suñu papa suñu lépp ñuy jaal itam ñu di la jaal soxna Asiyatu si ndax képp ku dëkk Tiwaawan wala képp monde islamique bi asi dañ koy jooy rek ba saa yu ñu ko fekkee yàlla na yéex di ko jaale itam responsable moral Serigne Moustapha si suñu xarit suñu càmmeñ bu euh, responsable moral bu daa iratul mu daairatul Moustarchidine wala mu sax Moustarchidaat ndax Fawade Wele mmh. Moustarchidine moo ko jiitu te aasi liggéey na ci liggéey bu rëy rëy ma fekke ko ku nekk yaa ngi fàttali ko gàmbu xombal mmh. kon nag bu ñu toogee tey soxna Asiyatu dëddu mmh. jóge ci loolu yokk def yëfi maamam faa wàdd wele fekk na ca mu sax si diin ga la la jànge ba sin mimara kon yàlla na koy leer gi topp ba mu dem jox ko waajuram boobu di sëriñ Mansour borom daara ji joxal ñu ko sëriñ Babacar si teg ko ci Seydi Hadji Malick mu tegal ñu ko ci Abul Abbas Ahmada Tijani jox ko yonent bi sallallahu alayhi wa sallam yàlla na eggalee njeegam ci àjjana ak mbooleem ku demee ci aajam boobu soxna Aida kon lan moo tax tey ñu séentu séentu bu njëkk bi démb. gisuñu ñu woor lan lan lan moo ñu may loolu. waaw soxna Faat Bintu li ñu may loolu. Mhm. mooy euh, comme na ko yonent bi alayhi salaatu wa salaam ci xaddis ba. Mhm. ni na ngeen woor. Mhm. bu ngeen gisee weer. bu fekkente ne lënt na wala nuage yi lëndëm ci asamaan si ba nga xamante ne mënuñu koo gis nañu matal fanweeri fan. ñu daldi di um koor kon looloo waral tey Sénégal. ñu ndax tey la am fan fanweeri fan ci weeru Chaabaan. dëgg la weeru Chaabaan bi nag euh, bu jeexee. Mhm. muy première ñu dugg ci weeru Ramadan. Mhm. dañoo war a um koor. dëgg la kon looloo waral tey wooraguñ ñun waa Sénégal. waa jëf Aïda xam nga jàngalekat nga macha allah tënk nga ko. Mhm. te ni nga ko tënkee noonu la. moo tax léegi war nañu xam. nekkoon li tax tey wooruñu mooy dañ ne suumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi fa in umma aleykum fa atimu salasina mooy woor leen ci bu ngeen ko gisee bu ngeen ko gisul matal leen fanweeri fan hmm. kon Sénégal démb asamaan si leeroon na xool nañu gisuñu ko matal nañu fanweeri kon suba insha allahu taala ñëpp war nañoo dugg si li ñuy wax ar as asiyaam nag mbokk yi soxna ay Ayda xam nga ci arab lu al arabiya uh-huh. rawatina suñu doom yi nga xam ne ñu ngi ñuy déglu tey jël ci daara ji di jàng uh-huh. ci luga dañuy wax ne al imsaaku an shay'i uh-huh. kalaaman kaana aw taaman mooy nga téye teetewu ci lekk ak wax ak wax waaw lekk ak wax gis nga ndekete kon weeru koor woor du rekk lekk kese ngay bàyyi déedéet dañ ne al al imsaaku ani shay'i kalaaman kaana aw taaman mooy da ngay bàyyi teetu ci lekk ba mu jeex mhm. min tuluil fajri ila gurubi mhm. shams bi fajar bi xaree mhm. ba bi jant bi di sow waaye nag wa nga teetu aussi ci yenn wax yi dinañ ci ñëw bu dee ci shar'i loolu luga la lugawiyan la bu dee ci shar'i al imsaaku anil muftaraat mooy nga teetewu ci lépp luy dog mhm. moo xam lekk moo xam naan moo xam yeneen ci ay xeetu pingu mhm. walla itam sëy walla itam ay ndog yu lay ñëw mooy nga commencé ko ci fajar ba jant bi sow waaye loolu kese ndax dina doy ayda am na lu ñuy wax loo xam ne ci biir la nekk mhm. loolu laa lay laaj muy li ngay fanaanoo intention bi intention bi euh, moo di nga yéene voilà très bien da ngay yéene. Mm-hmm. soo waree um sa koor. Mm-hmm. bu ñu nee suba la ñuy um koor. Mm-hmm. ci guddi gi ngay préparé wu. daal di yéene daal di fës yéene woor yéene nag woor wax la nga yéene tey rek wooru damay woor wooru suba. dangay ngay yéene ni weeru koor bi dama ko fës yéene woor ci kattan yàlla ko yàlla dinaa ko woor. waaw ndax li yonent bi alayhi salaatu wasalaam doon wax ba muy jógee. màkkatal mukarrama yàlla ni ko gàddaayal nga dem mun na war a mu ne innamal amalu binniyaati wa innama li kulli imri in maa nawaa wallaahi bi alayhi salaatu salaam dane woon ñi ko toppoon ba mu jugee ni bërit di dem ña ko toppoon dañ leen jëf ju ne yàlla yéene la cay xool te lu mhm. waay yéene ngay am kon nag yéene bi am na solo préparé ko nag bu baax te xam ne gan gu tedd la mhm. te weer yëpp mooy weer bi ci gën kon war nañ cee def bépp itte surtout ñun jullit ñi waaw euh, mhm. soxna Aida. Mhm. kon ndekete koor. Mhm. bala ngaa woor da ngay nekk. yan yan moo war a tax nga nga mën a woor ndax da ngay woor rek parce que koor gi jot na gisatoo ñu togg añ gisatoo ñu togg reer ak koo mënti doon ndax ku mu mënti doon moo mën a woor wala kan moo war a woor. du ku mënti doon moo mën a woor. Euh, ki war a woor njëkk. muy jullit. waaw kon il foog nga nekk jullit il nekk jullit doogu mën a woor. voilà très bi nga nekk. majeur waaw il faut nga bu dee jigéen mhm. nga gis sa règle wala nga gis sa mbaax wala mhm. say karaw mhm. bu dee góor nga gént wala nga gis ay karaw ci yenn yi nga xamante ne majeur moo ko war a am ci ngay woor ça veut dire daal soo bëggee li ñu li nga bëgg a wax foofu daal moo di ne pour nga woor il faut nga nekk jullit mhm. benn bu njëkk bi mooy mhm. nga nekk jullit mhm. ñaareel bi mooy itam nga nekk major al mukallaf al mukallaf waaw te muskallaf mooy koo xam ne jigéen nga am nga fukki at ak juróom kon ndekete ren képp ku mu fekkoon daaw nga am fukki ñeent ren mu fekk la nga am fukki at juróom mais ci weeru saabaan bi ci weeru juin bii passé wala juillet bi gis nga ci sa mbaax yow jigéen kon koor gi daf laa war comme ni mu waree sa yaay ak sa papa nga gis itam yenn ci sa partie yaram am ay karaw. Uh-huh. ci suuf ak ci sa sikkim wala booy wax sa baat dëgër fekk xale lañ la jàppee woon ci kër gi. ngay jël sa goûter di fo. bu la uh-huh. neexee nga woor di jàng ren nag. dafa nekk majeur comme ni nga war a jëlee sa card d'identité. Uh-huh. ñu ne la ren gis ngeen temps yëpp yaa ngi gis ci télévision yi ñuy wax naa nit ñi nañu dem jëli seen carte électeur parce que bu ñuy def élection yi day fekk majeur nañu nañu dem jëli seen carte d'identité. wante itam mbokk jullit yi xam ngeen ni ren ku am sa doom moo xam góor la walla jigéen uh-huh. walla doom joo xam ne yow sax juróo ku mel ni miin daan doole yi ci kër gi walla sofoor yi ci kër gi walla ñiñ la dénk uh-huh. walla yeneen xale yi nga xam ne say jarbaat lañu képp daal mooy euh, kilifteef gi nga xam ne mu ngi ci biir kër gi uh-huh. yàlla borom bi subhaanahu wa dafa ne kullukum raain wa kullu raain masulun ayda an raiyatihi kon ndekete il faut que ñu xam ne wareef boobu kon mbooleem du li nga jur rek mais li nga jur ak li nga xam ne moom lañ la jural mu nekk ci sa kilifteef mm-hmm. war nga teste di leen xool laaj leen jigéen ñi jege doom yu jigéen yi ba ñu xam ne waaw ñun de dégguñu kii bi sonnerie bi ki nekk si ligne bi bismillah waaw. bu ko defee ñu déglu ko asalaamaaleykum mbokk. waa bisimilah. allo. asalaamaaleykum. salaam wa mbokk ñoo ngi lay déglu. jërëjëf. bisimilah. jërëjëf yàlla na yàlla nangu ziar. alhamdulilah bi ak fooy wootee Alaaji. yaa ngi wootee Italie. États-Unis Italie Italie. Italie waaw ñu ngi nuyu waa itali bisimilah noo tudd. maa ngi tudd Moustapha Diagne. Moustapha sëriñ ñoo ngi lay ziar bu baax bisimilah. ziar. Mhm. ñoo ngi leen ci gal bu tedd gi nii bu woor ngeen wala umagu leen. non umagu nag. wooragu leen. bu dee woo na ko ah, waa Italie umaguñu kon umuñu tey ñoom it. non ko. ah déggoo ko waaw def nañ ko ci da xool nekk fii. Mhm. mais après dana mujj wax ne kenn wóoragul daal. waaw macha allah. suba ak daal bëgg commencé. waaw yàlla nañ ko fekkee jàmm ak salaam te mu yàlla nangul ñu ko. amiin amiin nan ngeen di waajale koor gi foofu. ah moom mooy waxtu yi moom di soraate lool. parce mhm. que moom bu reer ay trois heures ngay lekk. Mhm. bala nga lekkaat ba ay dix ci guddi. waaw gudd na de. ndax ndax ah man de ba fan yama fa nekk moom. dama ne ah. Adja Kine Seye madame Thiam jabaru Pape Thiam ma ne ko man daal kooru lundi yeeg jeudi yi xaaral ma denc ko ba ñibbi Sénégal ndax koor koo xam ne da ngay xool ba 11h ngay gis jant bi. waaw fii moom da jant bi lay ah koor gi ren dina saf ci yéen mbaa tàngul rek. non tàngaay moom na moom tàngaay commencé na lool. ah yéen doon jàmbat sedd bu metti de. ah waaw bi moom jeex na fi mu waa tàngaay bi ñëw fi mu eh, bi ñëw na. tàngaay bi ñëw tàngaay bi gumitaatu na fi mu ne. alhamdulilah rabbil alamin moom tukki ma waa dëgg la. te kii moom dafa yàlla baax mhm. leen yàlla taxawu yàlla jàppale leen yéen ñëpp. yàlla yombal lépp jafeñ euh, jafe ña fa nekk crise baak xat-xat yeeg wéradi yeeg yëpp yàlla ko yàlla saafara te yàlla taxawu leen. ndax yéen tamit bokk ngeen ci ngeen xam ne yéen a yokk développement réew mi ndax ku nekk la nga fa am yaa ko fas yéenee yónnee say waajur. nu ngeen di waa waajale waa waajur yi nag ak soxna yi nekk fii ci koor gi. ah xanaa ko daal bu soobee. yónnee ko <laughs> tàndarma yi. soo yeeg. Eh. ndekki yeeg ndog yeeg xëdd yeeg yëpp daal ah mënul ñàkk jërëjëf. <laughs> mënut a ngeen jëf jërë ngeen jëf ñëpp wax mhm. kontaan nañu. waa kay ñoo ngi leen di nuyu ñeen ñëpp salaamaaleykum wa rahmatullah waaw ko mbokk moomu itali la doon woote euh, jërëjëf euh, Mouhamadou Moustapha di woote hôtel ñu ciy jaar di ziare sëñ Seexuna ak ñoom Adja sëy ñoom Awa Ba ñoom yey yaa jàll suñu xarit yu baax yooyu fa nekk ak mbooleem nag euh, waa daara ji kër Serigne Touba bàyyiwuñu kenn kenn ñoom day faal ayda ñoo ngi nekkoon ci. xam nga bokk na sax ci euh, ci ki nga xam ne nee naa boo nekkee muskàllaf nekk ci kër moo xam ndey nga moo xam baay nga war nga càmbar ba xam njaboot gi nga leen di seetlu dégg nga ay da seetlu boobu yow en tant que jigéen xale yu jigéen yi nan ngay xame ne xale bu jigéen bi mu ngi toll ci lool la xale yi léegi dañu am seen i feemu bopp mën a nëbbatu mënal seen bopp mais yow lan moo la ci war foofu ci ci ci en tant que mag ak ak ak waajur. ak waajur euh, soxna Fat Bintu euh, xale yu jigéen yi bu ñu tolloo ci période boobu moo tax ñu naan jigéen. Mhm. saa su nekk rek dafa war di waxtaan ak njabootam surtout njaboot gu jigéen. Mhm. di xam li ñuy dund mooy lan. Mhm. di xam période bi nga xamante ne war nañoo nekk mu nga di leen jàngal. niñ ko war a defee. ak su ñëwee naka lañuy ñuy mënee dugg ci koor ak naka la ñuy amee xamee euh, seen laab ak moo tax jigéen dafa war a jàng jigéen rek moo war a jàng mm-hmm. ngir mën a yar njabootam ci biir kër gi mm-hmm. ndax la arab ba wax ne al ummu madrasa mm-hmm. jigéen école la moom mooy ëmb lu nekk moom mooy jur lu nekk kon war naa def itte ci biir këram ci njabootam jéem ràññee xam ku ci nekk xale yi naka la ñuy seen doxalin ak ndax euh, boo ki nga xamante ne dontele sax jubluwu la sax boo ko jéemee invité ci sa bopp mm. ubbil ko sa kanam mm. wan ko ak mbaax ak laabirté ak cofeel mm. bu yàggee daf lay bëgg dëgg la dëgg la waaye xale kenn du ne rek xale la wala tolluwu ci wala man yaayam laa am na yoo xamante ne waruma ndax léeg nga gis ñoo xamante ne ci seen biir kër ñook seen yaay dañu mel ni dañuy weccante ay xalaat te nit ñi mm-hmm. noonu la ñu war a dundee mm-hmm. seen njaboot ci biir kër gi mm-hmm. da ngay xool xale bi lan mooy xalaatam ak xale bi ci ngay mën a xamee ku des a jikkooy njaboot bu ko defee ñëpp di nga mën a composer ak ñoom loolu lu am solo la dañoo war a jàppale njaboot gi ci biir kër gi xam ñu góor ñi ak ñu jigéen ñi di tëye leen toppatoo seen i jàng toppatoo seen diine comme mbokk yi di defee rek euh, am na ku nekk si ligne bi simila ay di jël ko asalaamaaleykum maaleykum salaam. waaw bisimilah. soxna Fatou waaw. waa kooku. man la Ndeye Amy. sant bi. man Ndeye Amy Seck maa ngi wootee Espagne. yaa ngi wootee France. Oh, Espagne Espagne. Espagne waa Ndeye Amy Seck yaayu Seyduna Muhammad yow yaay soxna ah. Amina yow yaa ñu gërë yaa ñu jural gën ji mindeef. sallallahu alayhi wa sallam lool ci sama xol. Seck ñoo ngi ziar. ma ne ko bëgg la lool sama xol di la ñaanal fan bu gudd ànd ak wér. amiin amiin Seck amiin Seck amiin yaa rabbi. ndax dafa am loo xamante ne nii. Mm-hmm. dama ko doon def te si gannaaw yàlla si jëm jooyee ba ma bàyyi ko. dëgg la. wóor na yàlla. alhamdulilah. yow laa déglu. Mm-hmm. koor gi. Mm-hmm. am looy wax ci cigarette. yow yaa tax ma bàyyi ko gannaaw yàlla. Mhm. ma di la ñaanal fan bu gudd mu ànd ak wér. yal nañ ko yàlla boole ak mboolem jullit. amiin amiin moom rek laa lay ñaanal. wallaay wallaay sekk yal nañ ko yàlla boole. looloo taxoon may naa participer saa su ne day ne ci sama xel lu bëgg laa jot. ndeysaan ndeysaan. waaw waaye nga wax lu rafet ci lo jigéen ak loxoom ak war a fuddan war a toggal sëriñam war a kii di yor sigaret. Mhm. yow yaa tax ma bokk gannaaw yàlla. ndeysaan macha allah. maa ngi lay ñaanal fan bu gudd bu ànd eh nañ ko yàlla boole naka Espagne naka ngeen di waajale koor gi foofu. ñoo ngi um. ah suba ngeen di um yéen tamit kon waru leen tey. incha allah waaw yàlla mhm. na ko yàlla mottali. amiin yàlla may leen gudd fan gu ànd ak wér ñuy jaar di ci ziar ñëpp di ziar waa Espagne ñëpp bàyyiwuñu kenn góor ak jigéen mag ak ndaw. kontaan nañu torop ci sa woote bi ñun tamit sopp nañ la fasante nañu ak yow kóllëre noonu rek la àdduna addiinu an nasiha laayante biir rek la jërëjëf jërëjëf waa kay yàlla na la yàlla fay nuyu ñu ñëpp wallaay ndeysaan macha allah soxna Ayda gis nga nit ñi euh, diine nii rek la sami'na wa ata'na rek la dégg nañu topp nañu uh-huh. parce que yonent bi sallallahu alayhi wa sallam noonu la doon defee yaa ngi woon ci waajur yi ni ñu war di gëstu seeni doom ndax wax nga sànq ne uh-huh. al ummu madrasatun iza aadattaha aadatta sha'ban tayyibal nday mooy première école. Mhm. école yi ci biti mhm. mbedd yi day complété. Mhm. mais nday ji moo war a njëkk a tabax loo xam ni su xale bi demee école day day mottali rek. Euh, ñu mel ni ñoom oustaz euh, oustaz Fatou kan xam naa mu ngi ñuy déglu bu baax woo naa ko démb ba sonn jotuma ko ak oustaz Fatou Kayre ñoom euh, macha allah ma ñoom ñëpp ñu ngi leen di nuyu di leen ziyaare di wax ne Aïda kon nee nañu kon pour nga woor il faut nga nekk jullit. Mhm. kon ndekete jullit nag mooy kan mooy kuy julli. mooy kuy julli. ku julli jullit nga ku julliwul nag. sa jullit kon ndekete koor gi mhm. li koy laytaay ay mooy julli moo tax ku nekk ci règle mhm. wala ci deretu wasin mhm. wala ci feebar boo xam ne yaakaaroo ne mën nga woor ndax yàlla borom bi subhaanahu wa taala dafa ne fa man kaana minkum maridan aw ala safarin fa iddatun min ayamin uxar yuridu llahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra kon ndekete ku nekk ci ngant wala ku feebar ngant jigéen mooy mu gis règle wala mu gis deretu wasin deretu istixaada nag kooku mm. feebar la boo xam ne mënulaa teree wor ci condition que nga nekk koo xam ne du la indil anémie mm. parce que en général tam ci xeetu feebar yi la wala asafaru tawil allazi laa yaqillu mm-hmm. an salasa wa thamanina mitran kilomètre mooy 83. 83 comme tey mu ngi mel ni bu ma jógee woon fii di dem ba Mbour. Mm-hmm. su ma ci naree am coono mun naa dog ndax sunna la su ma fekkee nag attan naa ko wa anta suumu la lakum la yàlla wax bu dee mun naa woor xam nga léegi diggante fii ak Mbuur mais nag sunna la yàlla may na la ko 83 kilomètres yooyu tukki rek yàlla may na la amul dafa amul dafa kii lu la yàlla may la te yi tamit ki nga xam ne yi tamit moom euh, dafa tële ngir mag xam nga am na yenn âge yi wala nga yore feebar boo xam ne macha allah. Mhm. ñu mel ni ñi nga xam ne dañuy lekk tout le temps wala tension bu yéeg. Mhm. diabétique yeeg ñooñu diabète du diabète yëpp nag. du diabète yëpp am na mën a wax encore itam wax ne diabétique yi. Mhm. suñu demee ba waxtaan ak seen médecin seen médecin jox leen conseil yoolu wala tulqu bi aydikum ila tahluka bu boobaa bu leen alak seen bopp jéem leen a mudd te ngeen bañ woor mais nag testé leen essayé leen. su ngeen essayé demee incha allah taala gis ne mën na dem. Mhm. ngeen continuer woor parce que man gis naa diabétique yooyu woor bu fekkee ne nag dem ngeen ngeen xam ne mënu leen yassiru wala tuassiru yombal leen bu leen jafeel. Mhm. mag ñi itam ñi nga xam ne toll nañu foo xam ne macha allah âgé nañu ba xàmmeetuñu wala wala wala daal seen wér-gi-yaram mayeetu leen ko ñooñu tamit dañu leen di mu daal dootuñu woor. Mhm. loolu il faut ñu xam ko. waa léegi Aïda soxna Aïda. Mm. bu ñu waxee loolu waa léegi ki xelam dem nga xam ne xàmmeetul est-ce que kooku gëw ma ne mun na woor moom. xelam dem warul waaw ndax julli da koo wàcc. wala nga xëm wala nga xëm. nga nekk ci comment nga nekk ci coma. Mm-hmm. kon koor wàcc na la. Mm-hmm. ki nga xam ne yi tamit comme tey. Mm-hmm. léegi euh, woor na woorul mais mu ngi ci règle. wala mu ngi si ba mais set na ci guddi gi. mais avant muy sangu. asalaatu xayrun mina nawmi wax nañ ko. Mm-hmm. mooy heure bi ñuy arrêté xëdd bi. Mm-hmm. kooku mën na woor ak janaabaam bi mu nekkal. waaw waaye nag bu ma nee sangu avant moo gën mais nag ñàkk sangu bi itam. Mm-hmm. bu mu ko teree woor. bu ko teree woor waaw. waaw Alaaji Njaga Sekk waaw kay asalaamaaleykum waaw ah, waaw ah, ah, comme niñ leen ko digge woon Alaaji Njaga. waaw macha allah salaamaaleykum wa rahmatullah. waaleykum waaw ana waa mbokki Kaolack Medina Baye Niass Kumba Abdallah wallaay wallaay sa soppe bi soxna Faat bint ñoo ngi nii ci barabam bu tedd bi muy maam Alaaji eh, Abdoulahi Niass wallaay ndeysaan ñoo ngi nii ci barabam bi eh, mhm. fi mu tëdd tey ci néegu yàlla bi eh, ci jàkka ji ñu jàkkaarloog moom mhm. tabarkallaahu maak xaali Njaay ñëw war a def suñu reportage yu am solo yoo xam naa ñoo ngi fi fekk nag ki nga xam ni mooy as xalifa Euh, di kenn ci njabootam. Euh, mhm. sëriñ Hady Niass taxaw ci lool ngir ñu ñëw fii àndandoo moom. Euh, mhm. su defee dama lay bàyyi ak moom rek mu mu mu lu nu barab bi ak barab bi nga xam ni fi la maam Abdoulaye tëdd ak njabootam gu tëdd gii mu tëddandool. Mhm. soxna Fatou Binetou. jërëjëf jërëjëf Ndiaga waaw kon bisimilah oustaz Hady. waaw asalaamaaleykum wa ñi ngi am mbégte di ñëw ci barabu ziyaara. ci barab bi nga xam ne suñu maam alaaji Abdoulaye Niass fi la tëdd moom li ëpp ci njabootam euh, bi mu jógee Fass en 1910 euh, ndax euh, ci tënk moom bi mu jógee ba ñaseen comme niñ ko xamee rek tubaab yi niñ defoon sëñ Touba jàpp ko exilé ko noonu lañ bëggoon ndey bi nag mhm. ñu wax ko ko mhm. boobu ak njabootam dem Gambie mhm. kër ma Sàmba Euh, Gambie dana fa def dix ans. ah Gambie def na fa. waaw door faa jógee nag dem fee. Gambie ñaata at na fa def nga ne. fukki at dana fa def fukki at Gambie waaw. Mhm. ndax Kër ma Masamba la njëkk a dem. Mhm. def fa juróom-benni at. Mhm. déedéet def fa at. nit ñi fekk ko fa mu loolu dafay diis ci taalibeem ba mu fa fekk. macha allah beneen dëkk tuddee ko Cham. foofa dana fa def six ans. maanaam juróom-benni at. waaw foofa nag lay jógee. Euh, dem dem dem Fass mhm. bu seen Ahmad Tijani Chérif radiallahu anhu mhm. waaw Tanger lay wàcc euh, ci gaal euh, maanaam ci bateau daal di di gileem ak fas ak baxlaak yooyu ba ci Fass macha allah waaw ba mu jógee Fass nag mhm. léegi bi si Sénégal dafa bëggoon a dellu Gàmbi waaye soppeem ba di xaritam maam alaaji Malick si radiyallahu taala anhu radiyallahu anhu moo ne daal yow li nekk ci yow nga dem Gambie gënut nga toog senegal moo gën. macha léegi tubaab bi daf laa ragale xel ndax bokkoon nga ci xare ci maba ak ci sa hermati <laughs> dañuy foog ne rek boo amee mbooloo da ngay dalaat ci seen kaw. Mm. waaye boo dëkkee ci seen biir ñu xam ne yow bay ak jàngale mooy sa affaire euh, maanaa dootuñ la ragal. <laughs> loolu la ko maam Alaaji Malick looloo tax bi mu ñëwee. maamalaaji sax maamalaaji Malick gunge na ko diggante Tiwaawoon ak mm-hmm. Kaolack ñëw na ba Gosaas maamalaaji Malick <laughs> door a dellu xam nga Gosaas ak Kaolack daanaka eggoon na Gosaas ak Tiwaawoon wallaahi moom waaw te loolu rek cofeel mm-hmm. ak uh, ak ak bëggante moo moo ko indi ndax ñoo bokk tarixa bi muy tarixa Seydina Ahmad Tidiane Chérif radiyallahu anhu wallaahi waaw ndax euh, damay dëgg erreur yu bari ñu di ko def. Mhm. buñ ne suñ bokki laayeen yi suñ bokki murid yi suñ bokki xaadir yi. Mhm. suñ bokki tijaan yi suñ bokki ñeseen yi. waaw <laughs> buñ ne rek ñeseen dugg na. <laughs> Ah, moom ci tiijaan yi la bokk moom. loolu la loolu nag mu ñëw fii nag 1910 mhm. la fi ñëw. waaw. <laughs> waaw waaw. waaw def ci saawiyaam bi tey ñu nekk. ak euh, Serigne Seck. waaw euh, oustaz euh, xam naa ne Niass Koumba Abdallah di li ngay wax noonu lu am solo la yaa ngi dugg fu am solo waaye loolu yëpp incha allahu taala tey moom daanaka dañuy def rek ñamali la. ndax bu soobee yàlla loolu yëpp ci weeru koor gi loolu moo tax ñoom oustaz Ndiaga ak ñoom xaali ñëw foofu. pour loolu la ñuy jël incha allah fas yéene leen ke tojal leen ko ci weeru koor gi ñu hmm. teg ci bët ñu waxtaan ci mu gën a yaatu bu soobee yàlla oustaz Ndiaga kon yéen a ngi nekk ci liggéey bi noonu ñoo ngi leen di nuyu waaw kay Fatou Bintou xam naa noonu nga ko waxee rek waaw noonu la ndaxte itamit eh. ñeneen a ngi feneen di xaar waaw fas yéene waaw te tey dañoo bëgg ñëpp dugg ba ñëpp xam ne fu nekk dinañ ko ñamali bu soobee yàlla incha allah bu ñu jógee fii nag fas yéene noonu dem Kossy waaw bu ñu jógee Kossy nag doog a dem Medina Baye incha allah. macha allah daal bu ñuy bàyyi ko lépp danañ leen ko jotule ak lew na. waaw ak lew na waa voilà jërëjëf kontaan nañu yàlla na leen yàlla fay yàlla yombalal leen mission bi. kon nag euh, gis nga soxna Aida euh, rajo Futur télévision Futur média moo mel noonu seetu askan wi. Mm-hmm. dañu fas yéene mboolem kuy kilifa diine rek. fii ci Sénégal ñu egg foofu jàngat sa jaar-jaar ci weeru koor jàngat sa jaar-jaar ci diine ji ak noo ko sase indi ko tas ko pour mbokk yi njaboot gi xale yi xam lépp lu baax li ñu am li nga xam ne mooy njëriñ fii ci suñu réew ak ñi nga xam ne ñu ngi ci biti di ñu seetaan mm-hmm. ñu gis innovation bu mag boobu nga xam ne Futurs Médias moom la ko indil xam naa dañuy continuer Euh, ci fi ñu nekkoon di wax auditeurs yi aussi ñu dugg euh, di xaarandi yi tamit ñoom sëñ Jili ñoom Pape Anne ak ñeneen ñi nga xam ne ñu ngi ci yeneen kër yi mm-hmm. loolu yëpp dina ñëw tey ndax tey moom tey bésu annonce programme bi nga xam ne ndax Oustaz Mor xam ngeen ne ngànt gi moo am tey ñu invité soxna Aida ñu nekk ci waajtaay bi euh, waajtaay boobu nag macha allah lii da bokk mm-hmm. mooy ñu wax leen li ñu fas yéenee togg yi nga xam ne ñu ngi koy togg ñoom joxe nañu mooy yi ñu nduggi ñu ngi ci cin yi di taal incha allahu taala bu ñoree buñ ko yekkee ngeen xam ne jéeg dugg na waañ waaw yàlla na sotteeg jàmm ak salaam kon ay da kon gis nañ ne mm. euh, ngànt yooyu boo ci génnee tey mm-hmm. euh, war nga sangu nga dugg ci koor gi suba mm-hmm. mais ay itam dañuy mm. bëgg ñu xam ne mm-hmm. koor gi yonent bi sallallahu alayhi ci gàddaay bi si at lañ ko ko lañ ko ko farataale ndax xam nga yàlla dafa wax ne kutiba alaykum siyam kama mm-hmm. kutiba ala lazina min qablikum laallakum tattaquun waral ñu jëkk ñi daan nañu woor mais ci diine lislaam ndax yonent bi fukki at ñett yi mu def màkk mm-hmm. wooru ci daaw ci woor daaw ci woor wooru lislaam kon kañ la woor wooru lislaam bi euh, mi ngi woor ci wooru lislaam bi ñaareelu atu gàddaay bi waaw da Seydina Muhammad commencé woor sallallahu alayhi wa sallam sallallahu alayhi wa ci la nag euh, yàlla def nag jullit ñëpp tey. Mhm. di ko ci roy ndax ñun ci moom dong la ñuy roy. wallaahi moom dong yàlla moom la ñu royloo. Mhm. ndax suñu maam Cheikh Seydil Hadj Malick. radiyallahu taala anhu daan na mhm. wax naan. man day Mawlana Abul Abbas Ahmad Tijaan mooy sama sëriñ waaye nag euh, yàlla subhaanahu wa taala ci sayduna Muhammad sallallahu la ma royloo man yonent bi laay te dañoo nekk mag ñoo xamante ne ñu dégg diine lañ. Mm-hmm. ñu tegoon seen tànk ci sunna Seyduna Muhammad alayhi salaatu wa salaam. est kon borom bi ci Seyduna Muhammad la ñu royloo. kon aaya sax dikk na ci. waaw ñëw na ci. laqad kaana lakum fi rasulillahi uswatun xasana wallaay ndeysaan waaw mu ngoog. waaw kon uh, mm-hmm. mu mel ni kon képp kuy jullit rek. danga war a teg sa tànk fi Seyduna Muhammad tegoon tànkam. Mm-hmm. ndax loolu lu am solo la. ndax moom dañoo liggéeyal macha allah ba ku nekk tey bu ñu yaatoo rek moom la moo yaatal. Mm-hmm. moo yaatal moo taxaw. moo góorgóorlu ndax bu njëkk lislaam daj na ci lu nekk kon nag képp kuy jullit rek boo amee mm-hmm. xel. gore. Mhm. da nga ko war a delloo njukkal. waaw sa suñu jigéen ñi de. jigéen ñi tamit ñi nga xam ne moom fa mu leen fekkoon metti woon na torop te loolu dina feeñ ci bu ñu duggee ci këru diine yi. ba indi ñoom jàngat bi nga xam ne moom la ñu jàngat. Mhm. du ni lislaam ci fii ci Sénégal. këru diine yi ni ñu ko téyee. ba tasaare ko ba tey tey fi gën a ruqee ci àdduna boo demee fekk ñuy wax ashadu an laa ilaaha illallah wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu mhm. ay da mu des itam ñu dugg itam ci ponk koor gi. ci mm-hmm. ndax xam nga ne mm-hmm. comme suba la ñuy woor incha allahu taala mm-hmm. dafay baax ñu xamale nit ñi lan la ñu war a fanaanoo mooy xam nga sànq wax nga ne yéene wax nga itam innamal amalu binniyaati wax nga ne dañuy yéene waaye yéene boobu dañu bëgg ñu xam ne nit ki nan la ko yéenee ndax day def saa yu xëyee wax ko walla nan yéene daal nan la ko nit di defee euh, da nga koy yéene fas ko ci sa xol. Mm-hmm. ba pare nag jëfe ko. waaw te itam defe naa ne bu ma juumul baax na itam mm-hmm. nga yéene ne mm-hmm. yàlla borom bi subhaanahu wa taala dama fas yéene woor weeru koor parce que itam baax na li ñuy wax ak taayin wa zalika bi an yu ayina nawu siyaam mooy nga xam façon koor gi ngay woor xam nga man su ma wooree démb si altine bi woor jeudi loolu kooru ngàttar la su ma wooree sitta shawal juróom benn fan ci weeru sawal weeru kooru sopp la su ma waree yow mu taasua ak yow mu asura loolu tamit sopp la ayaamul biir yi salaasa salaasa ayaam min shahr min kulli shahrin mooy weer wu jekk nga woor si ñetti fan mais par lu ñu gën a bëgg mooy treizième quatorzième quinzième jour mais nag koor gii boo koy woor mm-hmm. war ngaa wax yàlla ni dama fas yéene woor weeru yëpp weeru koor gi nga xam ne da nga ko farataal ci sama kaw te day baax guddi gu jot mhm. nga def li ñuy wax tajdid nga yeesalaat yéene bi kon ay da dañuy gis ne macha allahu taala mhm. loolu am na solo kon njaboot gi nga xam ne ñoo majeur ren mhm. mooy borom 15 ans yi borom 18 ans yi am na ñoo xam ne seen bos day yéex kon ku nekk tey ci waajur na gëstu doomam laaj ko ndax gis na baax wala te loolu waroon na koo xam bu ko xamul woon na ko laaj xale góor yi tamit ñu teste leen te préparation examen wala préparation nangam ak nangam waru laa teree mën a woor su su xale yi def BFEM en général ñu ci bëri ci ñoom ren day fekk ñu nekk ci duggum koor ñu nekk ci eh, ci ci deretu wasin ak deretu regal bu ñu setee tey ci guddi avant cinq heures du matin même bu ñu sanguwulee nañu jàpp koor gi mhm. da ngeen bu baax foofu sew-sew la dañ koy yéene ndax janaaba mhm. dafa bokk ci mustahabaat yi nga sangu soxna Aida mhm. mais bu fekkee ne sangoogoo ba cinq heures du matin cinq heures demi jot te nga xam ne boo fi naree di sangu ji doo fi mën a xëdd xëddal ba pare nga sangu julli mais ñàkk sangu boobu mbokk yi bu mu la teree woor ndax damay ragal sama mbokk ñoom euh, soxna Binte Diallo ñooñu ñoom euh, awa ñoom Jeyna Ndiaye ak ñoom euh, ndeysaan macha allah awa jàll ñoom ak ñoom soxna Maymuna bu ndaw ak Mouhamed ma kay ziar Mouhamed Harouna bu ndaw day may ragal ñu ragal ne rek comme koor gi tey ah am ñu ngànt rek ñu ne ah naa bàyyi rek ba suba wala naa bàyyi ba ginnaaw suba <laughs> kon ñu ngi leen di wax ne képp koo xam ne yaa ngi nekkoon ci ngànt tey na nga sangu ah nga nga nga nga nga fas yéenee woor suba su fekkee ne sangu woo waaw ah, am na am na mbokk moo xam ne itam mu ngi woote ci ñi nga xam ne xam ngeen ne tey macha allah télé bi dafa yónnee ci këru diine yëpp kon ku ma am léegi laa ci alaaji Ceerno bisimilah. Ah, ah, kooku sama xarit la alaaji Ceerno Ndiaye jaata Ndiaye. maa ngi lay ziar bu wér. yal na yàlla nangu ziar. di ziar téléspectateurs yi xam ne à travers le monde entier ak ci biir réew mi ñoo ngi suivre ñoo émission bu mag boobu di wareef ci weeru koor. amin amin Ndiaye. te weer wi lakk bàkkaaru doomu aadama yëpp yàlla na lakk sunu bàkkaar bi. yëpp amin yaa rabbal alamin amin ñaan yàlla sunu boroom. nii ñu ko yëkkatee. dugg ci bisimilah rahmaani rahiim yàlla nañ ko eggale ci alhamdulilah rabil alamin amin amin alaaji Thierno foo nekk noonu yow. maa ngi nii Armal jëm ci dëkk bu mag. Mhm. su may wër nag dinaa dem ngumba ci dëkku maam Cheikh na Cheikh Saad bu ba. radiyallahu taala dinaa dem Nguraan. xayartu dinaa dem. Andulaay ca dëkku maam Cheikh. Mouhamad Lamine Dramé dëkku wala Thierno Dramé ba. wallaay ndeysaan Dramé Socé dinaa ñëw Pire. ci dëkku maam Abdou Cissé ba. sunu baay Amat Cissé. sunu mag sama dëkku nijaay El Hadj Moustapha Cissé. Uh-huh. wàcc Njaasaan. incha mm. allah rabbi ci dëkku maam Boukounta ba. wallaay Njaasaan dëkku maam Bekkaay. Mm-hmm. dëkku Baay Sidi Lamine ba. Mm-hmm. dëkku El Hadj Bou Mouhamed. Mm-hmm. xalifa bi. Ah, du ma fayam de. dinaa riñaani dem canaba dinaa dem ci gox yi xam ne maam yi taal nañu. seen gëlëm ci diine ci réew mi fépp. macha allah fu sunu maam Cheikh Amadou Bamba taal. Mhm. fu sunu maam Seydi Hadj Malick taal. Mhm. sunu maam yëpp si ñu taal. Mhm. ñañu fa sampoon danañ jéem fexe ba ma a egg ci foofu. macha allah di leen ñëw ba ci jam ñaaju ci Cheikh Moussa Mané. allah nga xam ni maamam ak Cheikh na Cheikh Saad bu la woon. waaye Cheikh Saad bu dafa waxoon Cheikh Taalib yooyu yónni waxal Cheikh Sidaati mu dem ca mu jógee Ndakaaru. macha allah sañc jam ñaajo. Mhm. xeex ak li nekk ci jam ñaajo ci jinneeg lu ne. Mhm. daal fi di leen ci diine. macha allah ñu yam foofu de. dinañ dem ci gox yépp yi xam daal sunu maam yi. ca dëgg-dëgg mhm. ndax télévision bi mooy futur média télévision bi fësal lépp maam yi. wallaay ndeysaan. tey yow mi xam ni tey. yaa toog foofu. macha allah. ñu ngi ñaan yàlla dolli lépp. amin pexe nag su fekkee ni day jóge ci jaam mhm. na rafet na baax dëgg la mennum xel doyul dëgg la bi suma jigéen day jël xelam sànni ko ci xelu ñun ñi mu nekk ñépp wallaay dëgg la luy dundal luy doxal lu gën lu baax lu mhm. mën a baax lu taaw luy taaral luy defar luy defaree luy mhm. boole luy boole waate ñëpp ñëpp booloo doon benn mu ni daal man daal ci dëgg-dëgg daal ci loolu laa bëgg a dox daal. wallaay la ñëpp bokk. waaw am na solo am na solo alaaji Thierno Bintu mhm. ci loolu nag tey mission boobu ci laa nekk. yàlla leen yàlla sàmm dox maa ngi jëm mhm. maa ngi riñaan naa Mbour. Mhm. mu jógee Mbour damay riñaan bët dem Ndiassane. riñaan nag yëg wuti euh, goxumaam yëpp. lu ma fa lu ma man a doon danaa la ko indil ñu fësal ko ci télévision bi fësal. wallaay ci wareefu Ramadan bi incha allahu taala ak léppi maam i mhm, jërëjëf léppi la monde entier. Mhm. di nag. kon nag salaat sama njëbal ci maam Cheikh na Cheikh Sadou Abi. radiyallahu taala anhu xayar. këru mhm. di baalu ñëpp àq. te la ñaay amaloo kenn àq jaay ku baax la. yal na yàlla raxas xol yi tax. amiin boole ñu bennoo. <laughs> di jaay rasul sallallahu baax ñi loolu lañ bëgg. wallaay ñu julli ci booloo leen benn. béykat mhm. fi ci man. kon jàmm nañ yàlla jàppal. jërëjëf jërëjëf ci alaaji Thierno kontaan nañu. Ah. Ah, gis nga rek soxna Aida li ma la wax. macha allah jërëjëf Ndiaye. alaaji Thierno ngi noonu moom ñu moo ñuy demal Amdoulaye demal ñu piir demal ñu Ndiassane nee na ñëw jaar ba bu jógee ba ñëw ba ànd euh, jam ñaajoo dem Mbour. Mhm. loolu yëpp rek pour rek Télé Futurs Médias. mooy rek lu bees dañu indi ren rek. fas yéene mbooleem kuy këru diine rek ñu mhm. egg fa dinañ indi nag lu gën a xóot loolu dinañ dem ba ci waajur yi xool seen liggéey mhm. xool lan la ñu taxawe woon lan moo tax diine ji macha allah mel nii ci Sénégal mhm. lan moo tax nit ñi gëm lan moo tax nit ñi bëgg weeru koor bi tey macha allah ñëpp a ngi koy waajal ñëpp ñoom it ñu xool nag ñu mag ñi ñu génneel leen image yi wan leen commenté ko seeni njabootu bopp parce que nag nettali ci làmmiñu borom la dàqe parce que ñoom ñi nga xam ne ñooy seen njaboot mhm. ñooñu mën a wax ne sama papa nii la doon woore mhm. weeru koor nii la ko doon taxawe kon oustaz euh, njagaa ngi Kaolack mm-hmm. jaar foofu yëpp dem lépp luy ñaseen ak lu ñaseen dina fa dem kii tamit gis nga alaaji njag euh, alaaji Thierno Ndiaye macha allah mu ngi fii am na mm-hmm. ñeneen itam ñoo xam ne ndax tey daal moom ñamali la tey daal ba la ñu fee jóge ayda mm-hmm. ñëpp dinañu xam lan la ñu war a togg tey daal hors d'oeuvre bi la ñu nekk nii hors d'oeuvre bi nag mooy ñu génn ne macha allah ci kilifa gi li mu wax dëgg la waaw incha allahu taala euh, bu ko defee ayda mhm. euh, bu ñu demee pause ba ñëw mhm. ñu dellu siwaat nag ci ñi nga xam ne mhm. ñoo war a ñëw ñu delloo antenne bi ñi nga xam ne ñoo ñuy war a jox suñu liggéey bu am solo boobu kon euh, bismillah ku sañoon rek doo dugg foofu. déedéet waaye nag euh, ñoom ñi nga xamante ne ñoo fa dugg yàlla na leen fa yàlla génne. wallaay amin amin yaa rabbal aalamiin yàlla génne te kenn bañ faa duggati. kenn bañ a dem ñu toog ba mu ko def ko ay école. yàlla mën na yàlla mën na ko. amin ba pare macha allah. te ñu mhm. ngi te béréb bu. am solo la ndax ña ngi fay jàng seen diine. am nga ni ñu ciy jàng di ziar sax gis nga soxna Adama. Adama euh, wallaahi moo awa Diop daf. Euh, waaw Adama moom xam nga ne. Adama Thiour daara Fatimatu bintu rasul bu Padois fa lay jàngal mu ngi jàngal jigéen ñi. macha allah soxna Adama ñu ngi koy nuyu di ko ziar bu baax. wallaay wallaay ndax euh, li muy def it am na solo. am na solo te itamit bokk na si ñi leen di jàppale ba tey ku mel as Adja Assoufal ci Elbeuf ku mel ni Adja Awa kan bokk ndeyu soxna bu kan fële ca Paris ñoom Binte Diop Mamm ñooñu ñëpp ñoom bëkk néeg ñoom jeewo mm. ñooñu ñëpp ñu ngi def ci œuvre yu mel nii di ci def lu baax waaye duñu fàtte yi tamit suñu mbokk Mauritanie yi sànq ci publicité bi laa fàttaliku ñoom Adja Ndeye Mbodj ak ñoom Birane ak ñoom Khady ñoom ñëpp ñu waa jëgg yi ñi nga xam ne ñu ngi ciy jaar di ziar suñu yaay Adja Khady Ndiouk mi nga xam ne mooy présidente daayira bu Serigne Babacar si parce que œuvre sociale dafa am solo uh-huh. rawatina ci weeru koor gi uh-huh. weeru koor gi benn jullit benn jullit laa wax uh-huh. warul woor ba ngoon jot di am problème mu ndogu te ñu ne quatre vingt pour cent ay jullit lañ. ay jullit lañ kooku moom zéro ndogu moom waru fee am. macha allah. waaw ah, jërëjëf wax nga ma lu ma neex alaaji Pape Hann bisimilah. sëñ Pape waaleykum salaam. waaleykum salaam wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu. Adja Fatou Bintou àdduna bi yëpp kontaan nañu. ñun ñoo gën a kontaan aan. waa àdduna bi nee nañu jàkkaarloo sa jëmm ju tedd jooju bëgg nañu ci. walla walla wallaay man man maa gën a kontaan Seydou Aan. Seyda Hadja Aida <laughs> bu Serigne Cheikh Ahmed a wallaay wallaay wallaay bëgg nañu lool tabaraka la. wallaay wallaay bu aan naka foofu. ah ñu ngi fii nag euh, ci dëkk bu barkeel bile. wallaay ndeysaan. Euh, ñu ngi fii ci euh, fi hadihi buqaatil maymuna. wallaahi. fi hadihi al ardi diiniya. Mm-hmm. ardil xayri wa nafaxaat. waay Pape bul tax ma jooy waay yow tamit. Cheikh El Hadji Malick. macha allah masaliki ila llahi taala ahsan al masalik. macha allah. fi hadihi buqaatil maymuna ñu ngi ci fii ci ëtt barke bi. Mm-hmm. ëtt bii nga xam ni ay leer a fiy ballee Adja Fatou Bintou. wallaahi. ñu ngi fii ci ëtt bii nga xam ni jaww ji leer la garab yi leer la lépp leer la muy ëtt si biir Xaji Maalik. wallaay radiyallahu taala. Adja Fatou Bintou ñu ngi ci ëtt bii nga xam ni. Mm-hmm. fii la daan toog daan jàngale mboolem branche xam-xam yi. allahu akbar. moom la ko naar bu ñu wax Mouhamed ibnu Abdullahi waxoon ni. Mm-hmm. keroog bi mu génnee àdduna moom Seexul Xaji Maalik. Mm-hmm. suufam koy jooy. asamaan a ngi koy jooy. salaatul wustaa ngi koy jooy. julli juróom a koy jooy. waaye naar ba ni Mouhamed Ibn Abdullahi Ibn Mouhamed yaa baanaa jakani mu ni. Mhm. mboolem branche su xam-xam yi bu ci nekk yaa ngi jooy Sidil Hadji Malick. ndax na mu ko déggee woon ca xam-xam ba. Mhm. moo daan toog ci yoon garabam garabam gii. Mhm. daan jàngale bayaan. daan jàngale mantiq. daan jàngale usul. daan jàngale aruud. daan def tafsiru Qur'an. daan jàngale fiq. mboolem branche su xam-xam yi grammaire arab Sidil Hadji Malick a toogoon fii daan ko jàngale. allahu akbar Hadja Fatou Bintou. Hmm. maa ngi ci dëkk bii nga xam ni. Hmm. naar bu ñuy wax Mouhamed Ibn Abdoulaye Al Alawi. Hmm. moo waxoon ni. xal xalila yauja wanzila bi tiwaawooni. wallaahi. tiwaawoonu fii al yumnu lil mutayaas. yumnu wal yus wallaahi. mu ni yow samay sama àndandoo maa ngi lay maa ngi lay conseillé di la yëgal ni. jàngal jëm tiwaawoon. ndax boo bëggee barke bëgg teraanga bëgg xéewal. Mhm. nee na sa tànk bi te donte benn yoon la rek teg ko ëtt Seydil Hadji Malick boobu. macha allah mu ni mu ni arab yi bu njëkk bu ñu daan xëy di liggéey yi mhm. dañuy ñëw ba ci benn taatu garab ay picc fay ne. Mhm. dañuy jël xeer sànn ca picc ma ca garab ga. bu fekkee picc yi dañu naaw jëm càmmoñ. dañuy gaafal bés ba ne tey seen journée du neex tey. waaye bu fekkee picc yi dañu naaw jëm jëm ngay ñu ne tey seen journée dina neex tey. Mouhamed Ibn Abdoulaye Al wax ni. ci waawoon daal picc yi fa naaw yëpp. ndeyjoor la ñu jëm. allahu akbar. fama faara fiha taa'irun mutashaa'imun. walakinaha zaatu tuyuuril mayaamini. macha allah. ah Adja a Bintou maa ngi ci dëkk bii nga xam ni. Mhm. moom la alxaji Abdoulaye Sow ca Dagana waxoon ni. Mhm. ah zur malja al ulamaa. zur mhm. maxdan al fuqaraa. zur sayyid al garbi. zur man sawa a yasfi jahilaati. allah demal ziyaare ji nga xam ne mooy sangu penk ak soow. demal ziyaare ji nga xam ne saafara na bi mu ñëwee bari fi. réew mi lëndëm mu fexe ba nu bëgg yàlla bëgg Seydina Muhammad bëgg Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam waaw waaw waaw li man ataaw zahirahu wallaay dëgg la ah kaay leen le li ma ci pàkk bi nga xam ne ay leer ak yi talle. waaye mm-hmm. Adja Faat bi fii la Serigne Babacar si dëkk. radiyallahu taala suñu maam suñu soppee suñu xol. ñu waxoon baayam damaa mën a jàng mun ko mën suur. ki la mm-hmm. jàngal ma jàngalul. wallaahi man mën maa la jàngal. ah Adja Fatou Bintou fii la borom bi jaaw bu rafet bi yor na xilaafa teex. oh macha allah 40 ans 6 mois fukki fan ak juróom zéro fët. di Cheikh El Hadj Abdoul Aziz. zéro fët fii la dëkk. zéro fët su Malick borom tampon ba Sidi Mouhamadul Habib. wallaahi daal di Sidi El Hadj Malick dëkk. ak njabootam gu jigéen ju barkeel googu leen. wallaahi Adja Fatou Bintou ñu ngi ci dëkk ba leer bi ñu ngi ci dëkk ba wallaahi yéen a ngi ci leer leer gaa ngi ñëw ba egsi si dugg suñu biir xol yi. wallaahi Adja nuyu gërëm xaj yi su Ndour wallaay dëgg la dëgg la yëpp. wallaay ndeysaan. jël seen i mhm. mhm. waaw ñu xam na lañ doon dunde koor gi. waaw nañ te te te xam nga li gën a neex alaaji papaan. Ah, ah, ah. mooy. Mhm. càllala gi moo daggul. moo daggul wallaahi defe naa ne foofu nga toog tey. fa Seydi Hadji Malick doon toog am na ko fa toog ba léegi yore daara jënd defe naa. incha allahu taala Hadja Fat Bintou. wallaahi euh, léegi maa ngi dugg ci daara ji léegi incha allah danañ jokkoowaat. waaw dinaa dem gis kilifa yi ñoom ñëpp ku ci nekk dinaa la tàllal micro bi. Mhm. Euh, nga wax xalaat ci weeru koor wi. wallaay wallaay waaye ñu naka la ñu dundee koor gi. Mhm. wax ñu it Cheikh El Hadj Malick bu koor mësaana jot na mu ko daan teeroo. ak bu koor mësaana dem. jooy ya nga xam ne El Hadj daan na ko jooy. ak naafila ya. ak naafila ya. Mhm. ak firim alquran ma. ci alquran ma ak kaamil bi nga xam ni moom la ñoo mm-hmm. naafila tabarakallahu ñii naafila incha allahu taala Seyda. jërëjëf jërëjëf jërëjëf jërëjëf jërëjëf ay eh waay Pape kontaan nañu waaye yal na la yàlla sàmm. maa ngi ànd ak maa ngi ànd ak Mass Ndiaye nag Mass Ndiaye. alaaji alaaji Mass Ndiaye ah moom moom nee ko nee ko nee ko doom yooyu ñuy teg ci bool yi di ko jaay ci yoon bi bu ma ci fàttewaale. waaw <laughs> ah, yaa nee na nee na bool yooyu ñuy def jaay ci yoon bi. Diofène Tàng lay tooñ nee na nga bu ma ci fàttewaale. <laughs> jërëjëf jërëjëf Anne jërëjëf Anne macha allah Aida. macha allah xol euh, sedd na. wallaay ndaxte ku mu doon sa sago rek nga bokk ci lii. wallaay billaay ñi ci bokkul sax da nga leen di yërëm. ñi bokkul ci diine lislaam wala ñi nga xam ne xamuñu ko. Mhm. ni'matul islam eggul ci ñoom. Mhm. man damay toog da bu ma tukkee ba gis ñoo xam ne. Mhm. xamuñu yàlla. xamuñu téere yi. dokkuñu ci benn tariqa. ñu ngi dem rek. ndeysaan man dama leen di yërëm ndax xam lu neex lii uh-huh. te li mu saf ki ko macc rek ko xam xam nga Pape Hann lii mu wax képp ku ko dégg di jullit sa xol sedd na sa xol sori na te nag xam nga li ci gën a neex uh-huh. dama ne ñun euh, li ñu am chance ñun jullit ñi uh-huh. suñu dara dafa réerul boo ne cëpp madinatul mën a war rek ñu la yonent baa ngi nii sallallahu alayhi fii la doon néegam fii la juddoo fii la yaroo fii la fere fii la gàddaayee fii la denc yaayam fii la ñu denc pàppam xadijatu bintu xuwaylid a ngi nii fukki jabaram yeeg benn ñëpp a ngi nii saxaaba ya dara umpul nga ñëw Sénégal uh-huh. ñu ne la nga dem Maroc ñu ne la Cheikh Ahmed Tijani ngi nii dara umpul nga ñëw Sénégal dem Mauritanie uh-huh. dem Gambie uh-huh. ñu ne la Asar yaa ngi nii Seydi Hadji Malick a ngi nii Cheikh Ahmadou Bamba itam ñu ngi xaar Alaaji Jili moom mu wax ñu la mu la mu la mu la mu la muy ramassé nee naa la dañuy togg ayda waaye bu ñu yekkee ñu xam ne jéeg a taal <laughs> a teg mbana ndax euh, mm-hmm. télévision Futurs Médias mm-hmm. suñu kilifa gu mag gi nga xam ne borom vision la muy mm-hmm. Alaaji Youssou Ndour ak rakkam yu baax yeeg njaboot gi mu fi teg xam nga ñun autorité yeeg ñoom ñoomu directeur yeeg yooyu yëpp ñun ñun dañu naan dañ njaboot ndax ah, daaraal ko ñu am vision ne lii dañ koy jëli jëli ci kër yëpp kër yu mag yëpp duñu bàyyi benn nag rafet na ba incha allah te nii ñu ko jëlilee tey nee naa la ñamali la. Mhm. mais nii Pape Hann li mu waxee lu nekk dañ koy indi par image. ba pare Oustaz Mor Thiam a ngi ñëw. Mhm. ku ragal na daw. ku ñeme na nga toog. déglu ku ragal bul daw ñëwal ñëwal taataan lan ngay taataan mhm. taraktu lakum amrayni maa in la ñuy bu kenn ragal ñëw leen teg ko ci télé bi déglu leen. woo leen njaboot gi. teg leen ne leen lii mooy seen dono. crise de valeur bi am ci àdduna bi. te Sénégal di ci tebbi wàllam. nga gis li xew avant koor gi koor gi di ñëw ñëpp di ko waajal. soxna Aida. gis nañ ne gis nga lii nga nga dégg ci Pape Hann loo ciy commenté ndax xam naa ne suñu mag suñu xalifa ku nekk am nga séddoo waaye xam nga ñun Haalpulaar yi ñun Serigne Mbaye Abdoye suñu wasila <laughs> ndax moom moom moom kam ko wiyata mbimi e mbimami te xam nga ne wonnomi nen commune Haalpulaar kala mbiyo mbimi tan ko on min moom la ñu suñu papa Abdoul Aziz Sy borom bi jaaw bu rafet boobu zéro mm-hmm. faute wallaay maam Abdou mu dund ba génn zéro faute ah alhamdulilah gis nga fi may waxee Pape Hann pare gu ma sëriñ jéeli sama xarit sama soppe alhaaji Abdul Qadir bisimillah ah waaleykum salaam wa rahmatullahi taala wa barakatuhu sayida soxna Fatou Bintou ah alhaaji jéeli sama soppe waaw waaw ñu nit ñu nit ñu nit naanu kazalika wallaay ku la bëgg laa ci sama xol dangaa baax alaaji jéeli ñu nit ñu nit ñu nit ñu nit ñu nit raw nan la foofu wallaay wallaay bisimillah naka suñu mbokk yi foofu di rafetlu liggéey bi bu baax a baax. jërëjëf jërëjëf. tey Mbacke laa lay santale Mbacke baal la. di ñaan suñu borom sàmm leen. wallaay wallaay Mbacke. ndax mbégu mbégu jullit yëpp ngeen. wallaay ndeysaan jërëjëf Mbacke. nga xam nga am nga am nga ay soppi yu bare fii lool sax ci dëkk bi. waaye maa dab fenn nag maa leen foofu ñoom ñëpp. wallaay te xam nga yow sa diggante ak ak ak xalif général des mourides dafa yàgg. waaw waaw waaw moom nag moom sama xarit la sama sama sama xarit la ba may dajeeg yow Kajoor boobu. sëñ bi nekk wallaay wallaay booba nekkagul xalifa Mbàkke Balaay sa sëriñ Sëriñ Maxtaar wallaay ak Serigne Cheikh Thioro sama càmmiñ maa ngi koy ziar wallaay ndeysaan ndeysaan ak soxna Bali sama doomu ndey soxna Bali Muntaxa ah ziareel ma ko nag ne ko moom moom moom mooy sama cër moom cër waa Touba moom uh-huh. dafa bokk ci béréb yi nga xam ni moom la sëñ bi euh, mm-hmm. sàncoon fii ci dëkk bi dëgg la Mbàkke bi ñu xëyeeg léegi mm-hmm. ñu ngi ci jéem a topp tànki sëñ bi waaw topp ngeen lu rëy. Eh, waaw jëlal na leen image yoo xam ne incha allah yaakaar naa ni bu ñëwee ci wareef ramadan bi. Mhm. daañu nafaraat lenn ci dundu jëmm ju tedd jooju di Cheikhul Khadim. Cheikhul Khadim macha allah. waaw ba tax na wax dëgg yàlla léegi rek ñi ma àndal muy Ibou Diouf mi nga xam ne mooy war bi ak maam moo yow. Ibou Diouf ma ngi àndaloon ca màkkatal mu karama rek ah. ma nga ma naan rek. wallaay ndeysaan bi ñuy dem nii dafay am luñ ciy yëg. Mhm. fii ngay wootee nag. Mhm. dafa tolloo ñu nekk Daaru Marnaan. Daaru Marnaan wallaahi. Daaru Marnaan ji nga xam ni fi la buur siin seerele woon seere woon sëñ Tuubaa nii li nga xam ni moom la wax tubaab yi nii dafa jël ay ngànnaay dafay dajale ay ngànnaay pour dal seen kaw. Mhm. buur siin wax ni nit ki ma xam jàmm ji ma xam ci sëñ bi ak yiw yi ma xam ci moom wër na ma ne du koy xeex ak tubaab yi. allahu akbar. ndax yi itam booba li ko nexoon mooy. Mhm. këru daalu mën naan gi dafa lakkoon ndax xam nga daalu mën naan bi sëñ bi jógee ci géej gi soxna faa Bintu. waaw waaw. daf ci def juróom benn weer yoo xam ni. foofu ci daalu mën naan. daalu mën naan juróom benn weer yoo xam ni daanaka génn ko. allahu akbar. maam Cerno day génn ci këram. Mhm. gànnaaru euh, jumaa ji. Mhm. génn ci kër gi ci soowu jumaa ji. maam Cerno noddu ñu ànd julli. allahu akbar. ba bi nga xamee ni nag wax na ni. dafay dajale ay kër gi lakk na sëñ bi ne bu kenn génne dara. ñoom xam nga dañ nangoon ndogal suñu borom. mu ne bu dara génn bu kër gi lakk ba jeex. bi taalibe yi dajalee nag di dajale nag ay yére yu mel noonu. Mhm. ndawal maam Cheikh Ibrahima Fall bagage ci jóge woon dal. Mhm. ñu gis tànku lal yi nag jàpp ne ay ay tànku fetal la. daal di ne tubaab yi nag sëñ baa ngi dajale ay gànnaay pour dal sa kaw. ay waay in jaakum faasiqun bi naba'in fatabayyanu loolu moo indi woon loolu moo indi woon seere si ñuy dégg mu siiw te bu yàggul rek. Mhm. dafa am màggal jaxaaw. bu ah. sin nag yàlla booba may ko gisu gisu gisu xol mu xam ni sëriñ bi du kuy jël ay gànnaay di xeex ak tubaab yi. waaw loolu séeréer yoo ko defoon. tubaab yi nag manto. ndeysaan. booba teg sa manto mooy bu fekkee li nga wax du dëgg dañ mm. lay daal di folli. te booba xam nga Buur lu rëy la woon. lu sa rëy la woon lu rëy la woon. loolu soxna Fall Binta ci nga ñu fekk ñuy jël bërëb boobu pour indi wanaat ko mbokk yi ñu nafaraat ko ndax xam ngeen ni Touba. lé mu ngoog. Mhm. gannaaw bërëb bi ci boppam muy muy Touba ci boppam. waaw eh, sëñ bi sanc na fi Daaru Xudoos. waa léegi sëñ ji li. waaw xam naa ne moom yow da ngaa yekk. te li ngay togg am na loo xam ne euh, dafa goo ko ci cin li bëgg a yekk an sañ ji léegi léegi il faut que nga wax ñu itam euh, ci ci ci ci li nga li ngay préparé noonu waajtaay bi ci lan ak lan ak lan foofoog fan ak fonu ndax xam nga lu sëriñ bi moom xejul ci junni at xejul ci benn téeméeri at xanaa rek liñ ci attan rek lañ ci jël waaye Cheikh Ahmadou Bamba léppam xeju xejul ci benn bés mhm. lu bare waaw insha allahu taala euh, ni ma ko waxee léegi Touba mënoo ñàkk jël. li mhm. nga xam mhm. ni. mooy Daaru Xuddoos ndax bu ko sancee ba noppi. Mhm. Euh, Daaru Xuddoos googu sanc na ko. def ko gën a jàkk. sanc Daaru Rahman gi nga xam ni fa la daan dalal ganu naar yi ba mu gi ñu tuddee ko daa Daaru Naar mooy. mooy mooy mooy mooy pencum. Euh, euh, soxna soxna soxna Baali mi nga doon. Baali Baali Muntaxa Baali Suwaybu. waaw Mhm. waaye sëñ Mountakha moom nga tudd itam. nga xam ne penc maa ngi fees jàll ndax sëñ Abdou Akim. waaw waa ndeysaan ñu ngi koy jaale suñu papa jooju génn àdduna. moom it foofu itam sëñ Tuubaa moo ko sancoon. moo ko sancoon mhm. daalul mi nan foofu itam mhm. sëñ Tuubaa ko sancoon. defoon ci këru téere yi. waaw fi nga xam ne itam mooy daaru daaru Rahman. wax naa ko léegi. waa guy mbind. guy ñu nekk. ma ne guy mbind itam kër sëñ Baara. waaw guy mbind ak daalu alimul xadir mhm. sëñ daam abdourahman loo nga xam ni li ëpp ci njaboot sëñ Tuubaa ji moo leen jàngal wallaay loo ma ca ndaam mhm. ma mhm. léegi waaye waaye xam nga soxna Fatou Bintou lu ko jiitu jëlal nañu téléspectateurs yi ak ñii seetaan wareef daaru salaam gi nga xam ne moom la sëñ Tuubaa sàncal boppam ci dëkk allahu akbar macha allah jëlal nañ leen ko dem nañ fa jëlal nañ leen ko waaye lu jiitu loolu itam jëlal nañ leen Mbàkke Bawol gi nga xam ne fi la ganee àddina fi leen ko génne ni ko génnal dëkk loolu itam mu royee ko rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam ca gàddaay ga rek wallaay ca gàddaay sëñ Touba daal sëñ Jili daal dañu bëgg a wax ne rek moom daal maa ngi dégg démb sëñ Moustapha bu sëñ Saaliw di wax naan moom mm-hmm. daal mooy xadimu rasul rek te nee na yi tamit kilifa boo demee di ko jaamu ba mu jox la ndigal nee na hmm. buy génn caabi yàgg yépp ci sa loxo la koy teg bu ko tegee ci sa loxo nag ku séddu ku ku ku ku séddu ku séddu yaa koy sédd waaw xam nga soxna ma Bintou xam nga yow fi ñu toll nii boo boo amee sa jans bu baax te xam nga ñu bari min daan lañ koy tuddee wallaay wallaay ndeysaan nga nga dem ba doyloo ko wóolu ko mu yor sa caabi yëpp ba ko eh, eh. sa mu nga sa doom moom nga yónni sëñ ji daal kon dafa mel ni temps baa ngi ñuy njëtt <laughs> te xam naa ne daal li ci li ci li ci kër Cheikh Ahmadou Bamba radiyallahu taala anhu wax dëgg yàlla xaj xajul ci kii bi. naa leen indil ni ñuy waajale koor gi naa fi la yeeg euh, foofu maamoon bi nga xam ne ñu ngi koy jàng njaareem ak. waaw donc yeeg yooyu yëpp <laughs> allah kon daal xam nga nu ñuy def kon daal xam naa ne yow sa booli bu ñëwee. ku góorgóorluwul daal dina doy waar ñëpp dinañ suur Sénégal yëpp bu ñu yekkee ba bàyyi. incha allah kenn dootul lekkati. ñëpp day mel ni rek ñamu àjjana ak sajaratu tuubaa ba ca ba ñuy soloo buñ ca soloo dootuñu rafleeti waaye buñ ci lekkee dootuñu xiifati may nuyu ñëpp di leen di leen bu leen ñu fàtte si ñaan duñ leen fàtte sëñ sëñ sëñ jiili daal macha allah kon daal kon daal Aida. Mhm. gis nga sëñ jiilee ngi noonu. macha allah am nañu Pape An ca Tiwaawoon. am nañ sëriñ jiili ca Touba. xam naa ne dina Dubaay yi dara. ndax sëñ Sidi Maxtaar Mbàkke mi nga xam ne. Mhm. ñun suñu xarit la. ndax ñoom xeebuñu jigéen déedéet tuutaluñu jigéen ñàkk lu ñu fay faydi jigéen ñoom kilifa diine yu mag yooyu ñun bu ñu demee ci ñoom nekk ay ndongo dañ ñuy taxawu jàppale ñu tegte ñu won ñu sama papa Abdoul Aziz kenn waxaale ko si Malick Dabax yàlla ko yàlla yokk leen fa mu tëdd Serigne Mansour borom daara moo ma doon wax def naa la commissaire pèlerinage jël lu ma juróomi téeméeri pèlerin ne ma yaay leen di jiite yaay ma leen di yóbbul mag bu ñu demee yi bu ñu demee fële seexal islaam doom jigéen bu ma am mokkal nga alquran nga mbokk mi asalaamaaleykum ay da kii nag yaa koy jël li njaay law di wax dëgg jël ko <laughs> asalaamaaleykum maaleykum salaam wa rahmatulah soxna Fatou Bintou Diop Diop. Ah, waaw man daal maa ngi Elbeuf man. <laughs> Diop Faal Faal Njaga yaaram xam naa ne bi nga déggee sa kër maam kontaan nga. damaa dégg uh, buy mbind sama xol bi sedd. ren da lañ leen toggal soxna Asou. xam nga guy mbind moom samay maam fa la ñu nekk ñii jur sama baay fa la ñu nekk. ah maa ngi nuyu maa ngi nuyu nag man tamit sama jàngalekat bu mag boobu maam Younouss Dieng bu Gédo madame Mbacke. dama xamal la nag sëñ sëñ bu mag boobu dafa bokk samay maam ndax seen ñaari kër yi ñoo jàkkaarloo ci ca guy maa la wax lii yow ku baax nga looloo tax nga baax. te bu su su su sama maam yii may tudd muy Seynabou Sarr Fatou Sarr Mané Sarr. Oh. Mané Sarr. defe naa ni ñoo ñoo koy jox sagari njaam. jërëjëf jërëjëf Fall moom sëñ Sidi kontaan nañu. Muxtaar Mbàkke maa ngi koy ñaanal mu yàgg fi lool te wér. yàlla na dund ju junniy at. amiin maa ngi ñaanal sama sëriñ sëñ Moustapha mu sëñ Abdou Khaler Mbàkke mu yàgg fi lool te wér. jërëjëf jërëjëf jëf yow it ma di la ñaanal nga yàgg fi lool lool te wér. <laughs> Eh, amiin amiin yaa rabbal aalamiin amiin yàgg nga yàlla. soxna Ayda Mbaye Ayda si Ayda Dem Mbaye. Uh-huh. kooku sama turandoo yaay la maa ngi koy ñaanal mu gudd fan. amiin amiin maa ngi koy ñaanal ma gudd fan. Ah, jërëjëf naka sama doomu bopp yi naka waa Elbeuf waa Havre waa Mantes-la Jolie ana ana ana ana Binta Diop maa ngi nuyu ñëpp waa Évry bàyyiwuma kenn. a baax a ah, ñoom ñoom may <laughs> mun a màngaan. Kumbakan waa Kumbakan waa Serge moom it ñoom jàttu jërëjëf. <laughs> waaw léegi nag dugg nga ci téléphone bi mais malheureusement soxna Astou da ngaa yéex a dugg te xam ne techniciens yi ñoom euh, temps bi jeex na. <laughs> macha allah sama doom laasana ma dugg ma ne ko damaa bëgg a dugg. laasana suñu doom ju baax ji bi Adja Dégende nee na ko da ngaa rafet da ngaa baax. jërëjëf jërëjëf jërëjëf xam naa suba rek incha allahu taala. weeru koor bi ñu dugg ci jàmm génn ci jàmm seen jërëjëf jërëjëf Fall jeex na tàkk tàkk tàkk amiin yaa rabbi amiin yàlla dugg suba suba di nga suba moom da ngay teel a dugg bu soobee yàlla su ko defee soxna Aida mhm. laasanaa ngi noonu nee na temps bi jeex na tàkk dama lay jox ci gàttal rek une seconde nga tàggatoo ñu daal di tëj dem ba suba nag fekk sama sama xarit man tamit nag oustaz Mor Thiam mi nga xam ne dama ko nam bëgg ko ci sama xol waaw waaye nag loolu yëpp nag ñi may wax bëgg naa leen yëpp nag mhm. nañu xam ne après kaaw dama leen a bëgg ñoom da leen bëgg mais bokkul ak ndax damay bañ ñibbi kaw ni ma waaye ñi ngay bëgg ci kaw ni nijaay la bu baax macha allah <laughs> wallaay wallaay wax dëgg yàlla <laughs> uh-huh. fi ñu waaw téye ñu ba pare ñëw suñu digganteeg yow. jërëjëf yàlla may fan bu muy kaaw euh, Arona Ndiath euh, yàlla na yàlla guddal fanam. amiin amiin amiin amiin rek euh, sama yaay. Adja Ndumbe Ndiaye Adja Ndumbe Diatta maa ngi koy ziyaar ziyaar lu bare bare di ko ñaan fan bu gudd. di ziyaar itam monsieur le ministre Mbaye Ndiaye wax dëgg yàlla nekk yàlla ko yàlla fay. amiin amiin amiin Baye tamit yàlla na la yàlla fay. temps bee jeex mais yow dellu siwaat parce que yow moom yaay doo yaay nekk doomu wareefu ramadan comme ni ko caat nekkee ak soxna dëgër parce que émission bi rek mooy continuer kon nag euh, mm, mu ngoog waa impôt euh, domaine jërëjëf euh, jërëjëf mbaay jërëjëf yàlla fay ak képp ku ñuy seetaan rek ak famille Moussa Ale yëpp bu fàtte kenn di ziar yàlla Abdou Aziz Mbaay daaw góor ñëpp Abdou Aziz waykat nag soxla naa waaw bu ndaw Abdou Aziz de jërëjëf mi ngi lay nuyu moom kontaan ci émission bi kon ñoo ngi leen di wax. Uh, waaw kon daal uh, mbokk yi mu daal togg gaa ngi noonu. asalaamaaleykum wa rahmatulah jërëjëf Aïda ala uh, moom moom technicien yee nekk ci nopp bi ba xamatuma sax fu ñuy jeexale. macha allah li ñuy wax daal mooy ne wareefu ramadaana ngoogu. demee incha allah suba bu ñu umee koor jàmm yàlla nañu yàlla may ñu duggee ci bisimilah rahmaani rahim waaye nag bu leen fàtte xëdd bi. xëdd bi ci la bokk ndax inna li yi aw suxuur wala saxuur suba dinañ ko toj baraka kon nañu xëdd ñun ñëpp. fas yéene jàpp teel a woor dimbalante ñaanal jàmm jullit ñëpp ñi nekk ci biir réew mi ñi nekk bitim réew suñu kilifa diine yi suñu kilifa aada yi ak suñu autorité politique yi bàyyiwuñu kenn kenn kenn may ñaanal itam waa femme avenir ñi nga xam ne ñooy waa Ouest Foire di ñaanal itam waa ngaay mexe yi ne nañu dalal seen xel le 13 balaa TFM ñoom ñooy jiitu bu soobee yàlla incha allahu taala di ñaanal maam aw bu Serigne Diop Khady Fall benn ma dem Diaw ak Adja Ngone kan ñi nga xam ne ñooy suñu partenaire ci pèlerinage bi yal nañu yàlla may dégg ak topp di ñaanal suñu njaboot ñëpp di ñaanal waa kër Kaaw directeur ISRA monsieur Sène léegi rek ñu ñuy woo bi ñuy ñëw di nuyu Adja Binte Diallo ak soxna Abu Kan di nuyu sama yaay Adja Amindooy ak sama rakk yëpp di wax ne wa axiru daawaana an alhamdulillahi rabbil alamin wassalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu